jërë ngeen mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp invité de la rédaction am nañu mbégte àndaat ak yenn tey ji nag ñu fas yéene dalal euh, Moustapha Misra nekk ci euh, jeune réew mi nekkee fi nga xam ne nag moom moo di euh, Touba waaye tamit jiite mouvement bi nga xam ne moom la ñuy wax Macky na dem Serigne Moustapha ñi ngi lay dalal jàmm ci 24 actu ma bàyyi la nga nuyoo ñi nga xam ne ñoo lay topp. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu. mbokki 24 a yëpp Alaaji Agenou maa ngi lay nuyu ak personnel bi nga xam ne ñoo nekk ci barab bi yëpp di profité ci occasion bi di baalu àq ñëpp ci koor gi di leen baal di ñaan sunu borom boole nu jéggal di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifu général de Mouride sunu borom yàggal ko fi loolu te may ko ak wér di nuyu mboolem koo xam ne mi ngi bàyyi xel jataay bi fas yéene ànd ak yéen jataay bi fas ci yéene yit wax loo xam ne njariñul population bi lay doon mm-hmm. waaye bañ cee wax leen loo xam ne suñu njariñul bopp lay doon mm-hmm. jërëjëf eh, jërëjëf eh, Serigne Moustapha Messere wax nañ ko sànq eh, nga nekk ci ndawi réew mi bokk ci ñi nga xam ne itam <coughs> ràññeeku nañ ci lool waaye xëy na ñi nga xam ne xamuñu Serigne Moustapha rek boo ñu doon tënkal tuuti rek ci sa parcours ci wàllu politique lan nga ñuy wax waaw Moustapha Messere moom ab dongab daara la maa ngi juddoo ci dëkk bu ñuy wax Touba Mbul Kayal dëkk sëñ Muntaxa sëñ Basiiru foofu laa jànge alxuraan itam jànge pare maa ngi ñëw ci dëkk bi doon fi jàng métier fi laa jànge métier ba xam ci li ma ci war a xam lépp ba yilif ci sama bopp yilif ci samay morom gannaaw boobu it ci politique maa ngi ci dugg après élection deuxième tour yi. ci la deuxième tour yi ci laa ci commencé politique. kon yàggoo ci politique. déedéet yàgguma ci loolu. Mhm. ci élection deuxième tour yi rek laa ci dugg. Mhm. mooy bi Macky Sall ak Ablaye Wade. Mhm. ci laa ci dugg di jàppale candidat bu ñuy wax Idrissa Seck. fan nga débuté. maa ngi débuté ci. Euh, politique ci politique ci moom ci moom laa débuté ci politique. ci président Macky Sall ci président Idrissa Seck. Idrissa Seck Idrissa Seck laa débuté ci politique. ok euh, jiite nga mouvement bi ñuy wax euh, Macky na dem. mouvement bi lan moo ko tax a jóg ak mouvement bi ñaata membre lay drainer. mouvement bi sunu initiative bépp mooy Macky Sall dem te yaakaar naa ñun mouvement bi ñu ci nekkoon te dëkk Touba yëpp am nañ réussite totale ci li nga xam ne moom lañ doon liggéey. Mm-hmm. suñu liggéey ci mouvement bi nag nekkutoon mbooloo moo xam ne dañoo wàccoon di liggéey wala wàcc di politique nangam déedéet dañoo nekkoon ñoo xam ne ci côté communication ci lañ doon liggéey ak population bu Touba. te jàpp naa ne mbooleem liñ ci doon def ci côté popula ci côté communication. Hmm. yàlla defal nañu ci ab réussite totale boo xam ne. Hmm. mbooleem élection yi li tax Macky Sall ñàkk ci dëkk bi communication la. Hmm. ndax bi ñuy politique yoruñu woon xaalis. waaye fexe nañ ba nit ñi di dégg li ñuy wax. muy dugg ci seen nopp ñu xam ne ñii liñ leen di wax dëgg la ñu fexe ba ànd ak ñun ci loolu jox ñu victoire. Eh, sëñ Moustapha naka nga may waxee que ni réussir ngeen loolu te président Macky Sall mouvement bi Macky na dem te ba léegi Macky mu ngi fi. waaw xam nga sunu initiative ñun moo doonoon département Mbacké seize communes daf ko composé. bokk ci région Diourbel mu def programme bu ñu wax PUDC di ko séddale Sénégalais yëpp ñu gis ne PUDC région Diourbel da cee dellu ginnaaw te région Diourbel yore ay ressources boppam ressources naturelles am pétrole ak gaz ci penkub dëkk bi boo fa demee ci dëkk bu ñu naan Touba Bogo mu am nabu ndox mu neex moo xam ne Touba mënoon na cee am ba joxaale ci Mbàkke gi nga xam moom dee dal seize commune nag bu fekkee dafa nekk ci benn département Mbàkke composé ko ba fii may waxee mos mosuñoo teg ci suñ bët yi xeer wu mu teg Mbàkke wala ci commune yoo xam ne PUDC bi bokk na ci wax ci côté Ila Touba la wax ñu xam ne sunu liggéey au lieu que ñuy dem liggéey rek Daara Jolof li ñu naan duñ kaasal naan duñ leen kaas lu tali duñ ca jaar duñ waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bii di Touba li nga xam ne moom la commune bi soxla ak département bi loola waral suñu initiative nekkoon mouvement Makina Dem ñu àndoon ci ak ay kilifa nag ñoo xam ne sëtu sëñ Touba lañ ak ay borom xam-xam bokkoon ci mouvement xam-xam yu bari ak ñoo xam ne lañ ñoo xam ne ñu ngi ñu doon jàppale ñuy di ñu jàppale ci communication bi jàppale ci actes yi nga xam ne doon nañ ko def. Mhm. ba yàlla defal ñu ci réussite département Mbacké li ñu bëggoon. mooy réussite bi réussite bi cest bi laa mënut a dégg Moustapha parce que président ba léegi moo ngi fi te askan bi di ko gën a. Mhm. waaw jàpp naa ne màcc nga ci lool. Mhm. waaye bu dee xam nga consigne de vote. sur élection 24 février. donc kon nit ñi nit ñi ni ñu génnee huit heures neuf heures dix heures. Mm-hmm. ñu am matière taxaw woote. Mm-hmm. ak nañ defee sàmmal seen bopp urne yi ba kenn xeexut kenn yàqut kenn defut dara. Mm-hmm. woote ci ak mat goo xamante ne bii dix heures onze heures koo laaj danaan la sama loxo woote naa ba ñëw. boo xamee ku suñ doon da nga xam ne mbooloo mi woon nañ temm ngir jële fi Macky Sall. donc kon dañuy euh, bu ñu la déggee mooy yéen am na rôle boo xam ne joué ngeen ko ci Macky Sall ñàkk Touba. waaw ñàkk Touba dama naan sax rôle bi ñun ñoo ko suyee ngir mu ñàkk Touba. ndax bi ñuy bi ñuy campagne. yoruñu xaalis bu ñu jox nit pour mu café yoruñu woon sax ay moyens ñun suñ comité électoral li nga xam ne moo duggoon ci ci mi lépp matutoon 5 millions. mais am na ay ay nekkoon seen ginnaaw. waaw ah, nga ñooñu bu fekkee dañuy def te fesut. Hmm. pour que ma mën leen tudd du yomb parce que comme bi ñuy def ñoom Macky Sall ci lañ féete mais dañ doon nëbbatu. du leen mën na ñaar ñi ma ci mën kii nga xam dañoo feesal seen bopp. ku ci ah. mel ne Soxna Asuburi maa ngi koy nuyu au passage. Soxna Asuburi Mbacke men moom ñëwoon na ngir du ñu jàppale fésal ne daa jóge ci Macky Sall di ñu jàppale. loolu avant muy déclaré que ni day dem la wala. non non buy ci biir élection yi. ci biir élection yi waaw. sëñ Abdou Lahad mu sëñ Cheikh Say ñoo daan ànd même jour. di ànd ci suñu convois di dem ci biir dëkk bi Moustapha li yéen <laughs> li ngay wax. waaw ah, c'est que da leen a amalul njariñ. Hmm. xam nga ñoom. Hmm. dañoo yàgg ci parti bi di liggéeyal Macky Sall. Hmm. ak nit a di ko daa weesuwut mbooloo di liggéey nga tànn ci kenn nit cundum ne ko yow la situation boobu li ko indi mooy maam xëri Mbàkke mim na yow ñoom it ñu bëgg ko wan ne ko du maam xëri ñu wan mm. ñoom am nañ ko mooy fexe nañ ba sanctionné ko wan ko ne mm. donc ñooñu ñu àndaloon am na ñoo xam ne ñu ngi doon jël seeni millions mm. di ñu ko jox ci carburant lu kenn xamut di ñu jàppale ci suuf dañuy jox def ay soutien yoo xam ne ñoo tax Macky Sall ñàkk te ci biir lañ nekk ci risim bi te mën naa ci lim ñoo xam ne ay kilifa lañ dañuy hmm. ko ay salaire ci biir réew mi Macky di leen fay waaye bokk nañ ci ñi ñu dooleel ñun ba bi jàpp ne ngir ñu mën a sanctionné kon bu ñu la déggee mooy am na xam ne ñi ngi ci biir APR di xeex président ñoo xeex président ba mu ñàkk xam nga liñ naan liñ naan liñ naan ngarale lañ hmm. defoon hmm. defoon nañ seen sondage seeni calcul politique mboolem sénégalais ak Touba gi ñi ni dégg ñëpp ñu ne leen Idrissa sek day gagné même campagne yi ñu def ñoom fu leen romb ñu du leen yuuxoo di leen soofantal ñu jàpp ne risim bi day daw léegi li ñu mën a def mooy constituer seen bopp dañuy daw écarter dañuy fexe gis benn responsable patrie mi wan ko ne ko ñi ngi jàppale Idrissa wax la ko ci ay image nga gis ko nga xam ne ëllëg bu dara xewoon it ñëw taxaw ne la yéene la victoire bi ci lañ bokk du tax nag ñu wane ci ginnaaw ci Macky Sall ndax ñoom it dañu fay bëgg a lekk man am na responsable ne bii ñëw na wax ak ñun war a def déclaration mais dane a def déclaration déclaration pour euh, rallier ñëw ci yéen mm. ma mën a def déclaration damay nekk ci biir sama son xaalis ban may jox ma di leen ci appuyer ngeen di jàppale Idrissa Seck loolu jot te noonu la ko defee. te noonu la ko defee waaw. te mi ngi ci biir APR. mais nee na mënutoon a def déclaration de perte. Hmm. comme sonam dafa war a jot xaalis. Hmm. il faut mu récupérer xaalis su sonam ngir mën a ñëw di ñu appuyer ñun. Hmm. kon donc opposition bi lim am. bari na mais lu ci ëpp. APR moo ñu ko. voilà xam naa dinañ ci dellu si yéen naka ngeen def euh, ba téye Touba ba gagné ko bu weesoo euh, yenn responsable yi ci doon jàpp ak yenn commerçant yi naka ngeen def ba gagné Touba. xam nga image boo xam ne moo fiy dox. dafa nekk dëkkub religieux boo xam ne. li ñu xamee dëkk bi comportement bi mooy ab yar discipline. seriñ bi li mu doon woote lépp daf ko tënk ci ab yar surtout ndaw ñi ñun ñu gis ne politique en général bu fekkante ne cent la quatre-vingt pour cent yëpp ay ndaw a koy def te quatre-vingt pour cent yi pour cent yëpp ndaw ñu koy def liggéeyuñu ñu calculer na politique. wërta doon métti ci ndaw li te aussi image bi ñu yoree di saltil dëkk bi di xawee sutura suñu kilifa yi di wax di saaga ci dëkk bi. di def loolu daam ñuy def bari na fi daam bari na fi hmm. léegi ñàkk gi ñàkk a jox worma dëkk bi ak population bi nga xam ne ñoo wër dëkk muy communes yi ma la doon wax léegi. Hmm. loolu moo tax ñun ñu jug ne kat hmm. système politique bi ñu war a politique au que ñuy xastee ka saaga di wax lu ñu gëmut. di sol ay sagar di dox di fen di nett lu ñu xamut déedéet. dañuy indi comportement boo xam ne mooy comportement daara mooy ni nga xam ne noonu la sëriñ bi doon yare ndaw ñi. Mhm. ñu indi style boobu nag. Mhm. communiquer ci nit ñi ci communication boobu. Mhm. au lieu que ñu lay dem naan la dama lay digli wala nangam dama lay wax ne la kat nun ay jullit la ay taalibe sëñ Touba lañ nit ki kot comme dafa ñëw jox boppam sëñ Touba sama ngor moo ma mënta may may sanctionné ko ànd ak sëñ Touba même bu du problème mu tarixa ndax ma di Kenya ci murid gi la juddoo mais ñu bëri loolu fi amee xëy na wot ci wàllu tarixa. non non xam nga xam nga xam nga xam nga maître Ablaye Wade. Hmm. kon duñ ko sanctionné ndax am murid la. sëñ Saliou sëñ Touba moo ko seedeel loolu. maître Madické Niang mi doon dem dégg nga li ko sëñ Mountakha wax. Hmm. lu politique ñu woon ngir ngir mouridisme mais dañoo politique woon ngir. ay attaques yi doon jug ak ay menaces jëm ci moom ngir lim jox boppam sëñ Touba. Hmm. politique ci ay conviction ak ay idéologie ñu xam ne kat kii ñu àndal buñ àndeek moom am nañ yaakaar ci mu mën a jële réew mi fii yóbbu ko fii loolu bokk na ci li nga xam ne moo taxoon ñu doon communiquer waaye nag communiquer ko ci ab yar ak i teggin mooy di jug heure di wàcc heure xeexuñu xulowuñu xassewuñu defuñu benn manifestation boo xam ne difficilement parce que amu leen woon ay moyens yi war non même bu ñu amoon ay moyens hmm. mbooleem ñu doon dem ay sëti Sëñ Tuubaa dañ cee nekk ci euh, biir coalition bi doon demee ñi wuñu woon a dem ci lu àndut ak war may dëkk bi te xam nga communiquer koo xam ne sab taalibi la wala sab sab sëriñ la mooy gën a yomb ngay communiquer homme politique boo xam ne ba mu commencé politique ba nëgëni amalu la njariñ comme image politicien yi ko xamee waa APR nga xam ne buñ soxlaa la ñuy ñëw yore seenu skemb suyal ko nit ñi ñu cëf-cëfee ko ñu dem ñun communication bi ñu amoon mooy duñu la jox ñaari dërëm te fexe nañ nag ba li ñuy wax nit ki mu dugg ci boppa et pourtant ñu bëri jàppoon nañ ne APR nag bi yoon da doon gagné Touba parce que xëy na communication bi niñ niñ ci doxalee ci Touba ñu gis ñoom soxna maam xarit Mbàkke ak ñeneen ñi. xam nga APR li tax mënut a gañe Touba ak nitu digg dafa wut nga defar autoroute quatre cent seize milliards jëmale ko ci dëkk boo xam ne bu tawee centre ville dëkk bi day day day indone ba fii may waxee yow situation Touba am problème. am problème mais pourtant loolu bokk na ci chantier yi gën a mag ci Touba. Ah, nga may may ma ñëw. Mm-hmm. ba fii may wax yow situation dëkk bi. Mm-hmm. am problème mu nga mën a jug léegi mën a dem ci quartier périphérie jaar ci Abrahama waxuma la tali de. juróom-ñaari at nga dem ci quartier périphérie saa yi wër dëkk bi mënoo jaar ci ab raana wala ab tëli am nañ problème mu faju am nañ problème mu naan am nañ problème mu sécurité hôpital niveau 3 def millions dinaa dinaa ñëw ci hôpital bi mm-hmm. bala ngaa wax hôpital niveau 3 dangaa ñëw ci biir dëkk bi fekk fi hôpital boo xam murid dëkk bi gën neex a ci Sénégal boo xamee sa bopp. Ah ndax problème mooy Touba dañoo mënal seen bopp. Hmm. da ñëw fekk ñu defar hôpital. defar ay hôpital muy hmm. mën nga fi wàññi fukki wala fukki hôpital ak juróom yu mag ak bi nga xam ne Matlaboul Fawzayni murid yoo ko def. Hmm. li nga waroon def rek mooy siifa sonné bi ba nga xam ne tikkatu 5000 dootu am urgent francs ci pédiatrie bi dootu fa am mais nga yore xale boo xam ne ay 2 trois a fekk ko ci pédiatrie bi dem fa sept de matin kañ ngay commencé faju midi quatre mille francs ngay dagg ticket bu fekkonte ne réglé nga situation boobu duñ am problème hôpital ñun ba fii may wax ak yow Ila Touba ay ay ay ay corbillard ñoo fi jaar ak ay ambulance ndax alors Dakar boo jël ci fajar gi ka ca nekk day jëli rendez-vous waa Touba yi ngi ciy dugg nag di dem waa Touba yi ngi dem déglu ma man la Ila Touba bi léegi Dakar quartier la ci ci Touba nag déglu ma Ila Touba la Ila Touba bi bi li ëpp ci sénégale yi ciy dugg waa Touba nii di dem rendez-vous la ñuy jëli kon bu fekkonte ne am nañ fajo mu baax duñ dugg ci Ila Touba fajar di ràjji ràjji di jëli rendez-vous Ndakaaru Touba war naa romb foofu loo xam ne ñoom ne nañ quatre cent et quelques milliards lay dugal ci budget bi par màggal Touba war naa am ñàkk problème ba ne ba mu des wàllu sécurité ak wàllu fajo faju kay ñu indil la hôpital bu toll noonu indil la indil la hôpital bu toll man dama mus a gis ci àdduna wala ma dégg ko hmm. wala ma xalaat ko fenn hmm. fu autoroute 406 milliards jëm ci ab dëkk ñu am problème faju ak assainissement hmm. mais dañoo xëy na dañu xam ne Touba euh, ak diggante euh, Touba ak Dakar loolu. non xam nga diggante Touba ak Dakar li fiy dem ci Sénégal li fiy dem ci waa Touba yi. kenn xamul bien sûr loolu d'accord naa ci mais diggante ak Dakar. dafay fekkoon nag ab dëkk mënut bi nag. diggante Touba ak Dakar. Mhm. Mhm. dafay fekk tëli boo xam ne moo ko fi mag. même faju gi ngay wax sax ambulance bi il faut mu am piste bu baax. dégg nga dafay fekk tëli boo xam ne moo ko mag. Mhm. Macky Sall le 11 décembre la judd 1961. tëli bii mu fi fekk te Ablaye Wade liggéey ci Abdou Diouf liggéey ci jamonoy Senghor ba nga ni bu ko defoon deux fois rek da nga ñëw Touba dem mais dana yombal ki nga xam day dem Ndar ay Ranérou Fuuta ab dëkkam Linguère gi Aly Ngouille Ndiaye dëkk parce que tali bi moom looloo boo xam ne boo jëlee Ila Touba bi il faut nga jaar ci biir dëkk bi lëmbe ko doog a mën a génn transporter li nga bëgg a def moo xam nga wàcce leen li ci dëkk bi moo xam nga gàddu jaar fi jàll bu fekkonte nag defar nañ deux yoo xam ne day ñëw ci biir Touba uniquement da yombal kii ñëw Touba yombal kii dem Ranérou Ranérou yombal ki nga xam day dem Fouta yombal ki nga xam day dem Ndar mais autoroute. da koy jaay ki am ay moyens jënd ko. mi ngi mel na nga def fii benn alimentation tuddee ko sopp sëñ Fallou. ku bokk ci njabootu sëñ Fallou bu ñëwee day jënd. taalibib sëñ Fallou bi jëndub tàngal lu mu lay sante xaalisam la yore autoroute bu fekkee da tuddee sëñ Touba te mayewoo ko dañuy jënd man mi yor xaalis maa ko tal mais na da ngay da ngay appayage d'accord naa loolu mm. ko fekk koy fay mm. mais ki nga xam ne mooy fay mooy ki ko tal ki nekk ci quartier périphérie amul raanaa ko jaar dafa am na priorité parce que problème bi déguerpissement bi fi jaaroon mm. ay junniy junniy ndaw ñu yàq seen alal rajaxe ko ci ay centaine de millions période màggalu Touba gone yëpp sëngéem ñi defoon ay prêt ci banque yi ñi tegg woon seen i natt ñi bàyyi woon ba ñëw jël seeni i def ko ci marché bi état xëy xëy rek marché la loolu kenn subventionné wu leen du commune du état sëngéem googu population Touba sëngéem moom lañu leen du baal dëkk bi boo xoolee maire yi fi nekk ay jigéen lu ñu def ràbbu njàmpe waas jën xool gerte ak suqi ginaar ngir lan ngir bañ a mooy ngir bëgg a sàmm seen diine. population boobu boo leen taxawu te yore électoral bi. benn chef religieux yorut électoral Touba. population bi ñoo ko yore ni nga leen mën a def ay réalisation fexe ban fajo hôpital kenn mënu ko lekk. ab tali kenn mënu ko lekk. ab hôpital bi am na ñu euh, euh, tali bi Ila euh, Touba am na ñu ci liggéey am na ndaw yoo xam ne Touba lañ dëkk ñu recruter. waaw d' accord d' accord xam nga bu fekkonte ne usine xam nga bu fekkonte ne usine la xam hmm. nga fi mën a créer ay junniy junniy emploi yu mën a yor seenu njaboot hmm. di dund. Hmm. bu boobaa dañu xam ne kat lii am na lu muy dugal ci réew mi waaye Touba bénéficié wu nañ ci. waaye autoroute Ila Touba lu mu def ci suñu sécurité ba tey feeñagu ci. autoroute Ila Touba lu ñu def ci suñu assainissement ba tey feeñagu ci. autoroute Ila Touba lu mu def ci centre ville dëkk bi. ba tey xar kanam gi feeñagu ci. kon du priorité ci noonu. voilà Moustapha ñu avancé très rapidement xam naa loolu bu ñu ko doon yaatal mën naa gën a yaatu gis nañu élection yi génn ngeen ci euh, gagné ngeen Touba mais itam est-ce que amu leen mbetteel ci gagné Sénégal yi parce que euh, yaakaar bi ngeen amoon tasul. ci réew mi parce que yaakaaroon ngeen ne Sénégal nag yéen a koy téye. waaw xam nga li tax ñu yaakaar ne sénégalais ñoo koy téye. mooy li ñu sénégalais yi wax. ñu dégg ko suñu nopp lañ mën a jàpp. mooy sénégalais fukk yoo fekk ñu toog. juróom-ñett yëpp. dañ naan la doyal nañ ci Macky Sall. kenn ka moo ca des di sikki sàkk nga xam ne kenn nga leen di bàyyee. pourtant wane wuñ ko ci élection yi di kon. non non wane ko. Hmm. wane nañ ko ci élection yi. Hmm. parce que après élection yi. résultat niñ ñu ko joxee noonu ci Sénégal. musta am ba Sénégal amee indépendance ba nëgëni. Hmm. mësut am ci àdduna ba Sénégal amee indépendance ba nag ni donc kon loolu bu fekkente ne population bi ñoo dund loolu te wane woon seen naqar ak seen métit di xaar le 24 février jug bañ tiire bal bi nga xam ne moo leen dese muy seenu sànni tàcc ñu tiire ko ba pare ñu foqati leen ñun dañoo war a sant ñun opposant bi. ah parce que adduna sépp dañoo jàpp ne bu réew mi tàkk. ñun ñoo koy taal ndax danañ fipp waaye ñun ñoo ko wan ne ko sénégalais yi ñuy jaar ci seen i bakkan ak seen i néew di dem ci pale bi loolu nguur jëraluñu ko mais ku ne xam ne ne bëccëg gi ñu doon joxe résultat yi ñu miine Sénégal foo jaar fekk fa ay seen i camions yu gaare ak seen force de l'ordre joxe ay résultats yu jaar yoon jëru ko. Ah damaa jàpp ne lii yaa ko moom mooy dëgg. Mm. Mm. soxla wut tour force de l'ordre ak oto ndox ma tànk. mais loolu bu ñu ko defoon population bi ñoo ci dee sénégalais ñoo ciy faatu. léegi bu ko Idriss Seck def ko. kooku nguur tuxu koo jug. mais est-ce que bu ngeen leen jaral nekk nag. non non parce ñun. li jiitu woon ci ñuy dem mooy dañoo xam mag ñi nekk ci dëkk bi te ñaan fi ku ci mel ne sëñ tubaa ku ci mel ne El Hadj Malick ku ci mel ne keneen donc mag ñooñu duñ jëmbat yéen jéem a fipp sax bi élection yi jàll xëy na kay daa mujj sotti rek déedéet bu fekkee mag ñooñu dañoo jëmbat jàmm ci réew mi hmm. bu fekkente ne ku mel ne sëñ Mountakha xalif Sénégal de woote na woo opposant bi ñoom ñëpp ñu dajee cib saalam mu kañ leen wax leen ni leen xam naa lépp waaye am ngeen ndam lu rëy ça veut dire que ndam lañ bëggoon hmm. du côté ndamul pouvoir ndax mbir mën nga cee jot amee ci ndam loo xam ne ëllëg la lay xaare mais nag mën naa bañ doon loo xam ne lu teew lay doon ndamul lii ñu am ñëpp teg nañ ci seen bët na Macky Sall dafa jalgati élection yi mais ñun jëraluñu ñuy jaar ci kaw Sénégalais yi di dem ci pale bi. li ñuy mën a def mooy toog di ko seetaan ba Sénégal amee indépendance ba nag ni mas ngaa gis président bu am ndam ci ay élection deuxième mandat dara yënguwut ci réew mi. kenn sibiliwut kenn tàccuwut kenn sarxuluwut mel na daa am lu faatu ci dëkk bi dëkk bi ne lew. nga def sa passation def li ngay def lépp kenn yënguwut kenn manifesté wut kenn félicité wu la ci sa victoire. est nit ñi bëgg jàmm rek. <laughs> non non da naan nit ñi ñoo ko bañ xam nga fi ne mi ngi mel na ñu sukkoon ci ndab di lekk. Mm. mbooloo wër ko ñu teg ci benn dogu ndawal. Mm. nga ñëw ñu coppet dogu ndawal ñun ñëpp ñu suur bàyyee la ndab li boo doonee as gor waroo lekk. fi moom looloo ko dal ci situation réew mi mm. daf ko séq ak mbooloo ñëpp mënoon a fay yu mën a xeex. mu ne coppet la ñu bokk ñun ñëpp foqate ko ñu ne ko tekk di ko seetaan. tétone bii muy def. di dugg ak a génn nga xam ne ba fii may wax Sénégal déparagul ba fii ba fii may wax yow ah, ba mu gañee deuxième tour yi ba nëgëni ci liñ nekk mooy di ñu organiser kan mooy chauffeur bi départ bis bi ba tey clients yi feesagut bu tayee ministre bu tayee DC bu tayee nangam mais ba tey loolu loolu gouvernement yëpp la am remaniement day am changement am leneen ak leneen loolu waaw mais dama damaa jàpp ne man bu fekk remaniement day am changement avancement day am. ba nga gagné 24 février ba nëgg ni war nga ñoo teg ci ak su bokk war ñu signal bu leer. nañu lii mooy bërit ji nga xam ne moom la départ mu indi leen bilan bu leer sénégalais joxaat ko kóolute joxaat ko réew mi nag sëñ Moustapha non gëwuma ne sénégalais yi dañ ko joxaat kóolute beneen bi ci dooleeku hmm. dama koy laaj ban situation la am ak problème bu mu am ak Touba. kan président waaw. ndax 24 février lañ def élection yi 24 février lañ def élection yi. depuis 2012 ba léegi président mi ngi ñàkk Touba. te terewul mi ngi fiy dugal ah, lañ gagné la la moom nee na lañ def élection moom nee na ci la gagné 50 virgule nanga pour cent. Hmm. digg nga fenn fu Macky Sall yëkkate kàddoom tudd ci baatu Touba. ba ci bi mu def déclaration ci événement yi dana bàyyi leen xel ne am na événement yu nekk ci sunu kanam daaka a wax. ak appelu Layeen booba Kazu Rajab mi ngi ci sunu kanam ñëwagut màggalu Poroxaan booba dañ ko doon waaj ñëwagut ak yeneen ak yeneen xëy na da koo tudd rek mais président nag yàgg mm. daaw bi mu def campagne ñëw na poroxan daaw bi mu def campagne ñëw na poroxan mm. ren bi mu après bi mu gañee mm. la màggal poroxan waroon naa mën a sax boog toog félicité xalif seen daal de murid ndax jàmm ji moo ko fi indi moo calmé opposition bi wax leen na leen nañ muñ te toog xaar est-ce que defu loolu digganteem ak moom bu fekkee da daan wax déggoo leen wax Macky Sall bu daan wax da daan taal bu otom ñëw fii caméra yi dëpp du wax ci bi bi muy wax dafa wax ñëpp ci kaw li muy ay vidéo la yu tasaaroo ci internet bi. mais moom mënu koo est-ce que mënu koo def ci suuf ci. ah kay ndax dem na ba daaka sant leen ci kaw ni leen yéen a ma fal. ka mën a dem ba daaka ne yéen a ma fal war ngaa mën a sant sëñ Muntaxa ka mën a dem ba ba appel laay leer la ne sant santu sëñ dëgg damaa bëgg mu yëkkati kàddoom félicité population bi. Hmm. ak félicité sëñ bi ci act bi mu def woote jàmm ci réew mi. loolu laa bëgg mu def ko. woote jàmm gi kay weesuwul lu toll ni dialogue national ñu woote. waa xam nga dialogue national. Hmm. waxtaane yonent bi moo gën a màgg ñëpp waaye ci lu dul wax yu def ko daan diisoo xabaar bi jóge ci suñu borom rek la daw diisoo waaye ci programme boppam lu ñu daan teg ci taaba ji la ko dialogue bu fekkee da dem ci élection xam dañ ne da ngaa lëñbët fichier électoral bi da ngaa sàcc élection yi dangaa dem ci daaf tiri say carte dante population ñu bari jotuñu seen i pièces la waroon a jiitu mooy dialogue loolu avant nga dem ci élection yi bu ko defee bu nu gañee ci élection yi man du ma am lu ma wax ndax dama naan biir élection yi kat woo nañ ma dialogue dialogue ba lii lañ doon waxtaanee lii la waxoon lii la waxoon. xajoon na fi diggante ay organiser xaj na fi def na fi ay ndaje yu bari ay manifestation def ay ndajeem. ci stade yeeg fu ne mu def ko. loolu woo population bi ne leen nañ dialogue li ñu bokk. Mm-hmm. fichier électoral bi kat fi mu tolloon foofa dialogue mënu fa woon xam nga lan moo inditation tension bi. Mm-hmm. fichier électoral bi mu nëbbu opposant bi bañ ne cëpp ci dernier suuri élection yi ñu doog leen ko jox. Mm-hmm. mais bu fekkonte ne lu leer la. da nga naan mi ngi nii kat na ko ñëpp tegandoo bët. ci la ñu war a dem élection lan moo ci doon ay njuumte ko bala ñoo dem bu boobaa buñ gañee bu ñu gañee ñun kenn ku wàcc ci mbedd yi wax bu la neexee nga jël. mais mais seen njiit Idrissa bàyyi na xel dialogue bi tamit kan. non xam nga Idrissa. Hmm. man li tax mënumaa wax ne bàyyi na xel dialogue bi. Hmm. bis bi ñu joxe résultat yi këram la ma fekk Ndakaaru mu tëju cub Sall moom maître euh, kii professeur Issa Sall Ousmane Sonko ak Madické Niang. Issa Sall moom dem day dem ci dialogue. waaw da nga may diglu rek. Hmm. ñoom dañoo tëju cib saal bind benn bataaxal. wane ne d'accorduñ ci ni élection yi demee. Ah. reconnaître uñ Macky Sall ne mooy président de la République du Sénégal. Ah. man Idrissa ñi mu wut a dem ci ay dialogue may ànd moom ci loolu. Idriss Seck mi du dem ci dialogue. dégg li ma la wax. Hmm. bu ma déggee mu wane position ci dialogue comme moo ne reconnaître Macky Sall ne mooy président de la République Sénégal. Hmm. bala moo ànd ak Macky dana wax lu tax mu nangu dialogue bi. Hmm. ki nga ne d'accord ma muy sa président. mais pourtant ki nga ne d'accord ma muy sa président dégg li ma wax ki nga ne d'accord ma muy sa président. pour lan mu lay woo dialogue ngay dem. bu demee dialogue. bu demee man mooy sama bàyyi ko ci ndax xam nga man lu ma gëm. damaa gëm nit ki li ngay wax nga di ko dund. parce que damaa gëm ne moom bu fekkee nee na gëmut ne Macky Sall mooy président depuis élection yi ba nag ni kenn dégg ko duñ xëy xëy rek mu ne ànd naa ak Macky Sall cib dialogue loolu dafa yomb. boo xam ne nag askan wi moo tax. xam nga dialogue lañ wax waxuñ sax dialogue politique. waaw xam nga dialogue national bi. Hmm. li tax d'accord mu dem ci. Hmm. da cee wax baat bu am solo Macky Sall. mooy amatuma lu may njuuj njaaj. ça veut dire ne doon na njuuj njaaj ci sept ans yi. ah amatuma lu may njuuj njaaj. ça veut dire waaw Macky Sall ci boppam. moo ne amatuma lu may njuuj njaaj. lu ngeen tënk rek loolu laay dox. lan moo tax avant élection yi. waxatoo wutoon nañu ci lii ne du ma njuuj njaaj. mais élection nga ba pare. am nga deuxième mandat. nee nga soxla wu troisième mandat. dañuy woote ci dialogue dootuma njuuj njaaj. loolu kenn ñeme na caa dem di ko ci wujji ki ko xam nu politique di doxee ak baatum Ndiour Ndiaye. mooy daal yow bu ñu la déggee dialogue bi moom. d' ci xam nga lu tax d' ci. Mm. avant bu amoon ma d' ci. après bu amee dinaa ci d' mais amut avant. Mm. après am nga deuxième mandat li nga bëggoon lépp am nga ko. dama ko jàppee ab deal wala mu am leneen lu muy. waaj waaw am na leneen lu muy waaj loo xam ne. Mm. il faut mu dugal opposition bi ci kàmb rek. baatub dialogue. ëllëg lu mu indi danaan waxtaane dafa amoon beneen baat bu mu indi woon seen slogan yooyu ñuy wax rek waaye xam nga ñun lu ñu gëm. Hmm. fast track. Hmm. bu fekkente ne da nga nekkat lu rapide nga bëgg. Hmm. mais Abdou Diouf daa amoon premier ministre. def na fi ay réalisation ba jóge fi ci élection yi. Ah. Ablaye Wade da ko amoon moom moom doon na premier ministre Ablaye Wade. xam nga Ablaye Wade mosu ko supprimer daa am ñu ko fa jiitu woon supprimer wu leen. pourtant rapidité boobu président yàgg na ci DRB ak leneen ak leneen. xam nga président li ñu ko dénk am réew. dénkuñu ko quartier ñu ko kër. am réew sénégalais yëpp dénk la seen yaakaar wàccoo nañu ak yow mooy jox la seen force de l'ordre police ak gendarmerie jox la sécurité bi gën a fort ci àdduna nga gën a informé wu say sa say jox la sunu carburant ak sunu avion jox la sunu oto di la faj di faj sak njaboot di la dundal di dundal sak njaboot jox la ne benn kilifa diina booy tàggu boo koy jëfandikoo doo ci am ñun li warloog lu toll ñu dénk la nga ne kenn rek mooy pilote. ministre bi man lay rendre compte directeur bi man lay rendre compte keneen man lay rendre compte. kon gëmmu ko. Hmm. lu amut premier ministre loo xam ne amoon na premier ministre yeex bu defee direct ci président day gën a yeex parce que problème mooy. Hmm. bu fekkee mbooleem ñi mu nommé ñëpp ci administration bi dañ ko war a rendre compte. xam nga ne loolu du dem hmm. xanaa sa soxna sa bopp si ci kër gi sa kërug bopp képp da xëy yenu ay situation yoo xam ne doo mën a régler sa problème mu kër. waxuma am réew. junniy junniy junniy millions yi millions yi Sénégal yoo xam kenn ku nekk sa jikko bokkut kenn ku nekk na ngay dundee bokkut situation yi bokkut réew mi di réewum lay ay jullit nekk fa ay catholique nekk nga ne léegi lépp na daje ci sama bopp ku gëm politique ni muy doxee xam nga ne dégguma baatu fostra voilà wóoluwuma loolu ma voilà euh, sëñ Moustapha xam naa waxtu bi mi ngi dem ñu euh, jeexal lekk ak lépp loo xam ne jëm na ci dëkk bu sell bi di Touba ak jafe-jafe yi que gis nañ en tant que kuy yëngu ci politique gis nañ ni euh, ñàkku am na ci Sénégal rawatina Touba ak jafe yi nga xam ne moom la dëkk bi jànkonteel lan lañ ci mën a wax waa xam nga jafe-jafe yi hmm. li ci ëpp ci ñàkku kaaraange hmm. mooy discipline da ci am solo mooy yar hmm. mooy li ma doon wax am na ci côté boo xam ne kaaraange mën naa am waaye li jiitu ci kaaraange mooy nit ki daa war a xam ku mu doon beneen bi ci dolli ko dëkk bi mu nekk mu xam ban dëkk la buñ ko defee kaaraange dina yomb waaye it état na def li ko war ci wàllu kaaraange. ci dëkk bi ci dëkk bi. bi mu ñëwee dafa fekk sëñ Abdoulaye non non sëñ Abdoulaye dafa indi gendarmerie. voilà mu yokk Abdoulaye Wade di ñëw indi fi poste police. moom brigade police bu mag. moom bi mu ñëwee escadron la fi indi. waaw mooy bële ca sorti ba. yow escadron feeñ ci sécurité Touba. dëkk bii nag moo Touba nag moo yaatu. Ah, moo tax ma ne la war na cee yokk. lu yaatu kay da ngay dolli. est-ce que dolli wut benn alkaati nekk benn alkaati dindi bi ak yeneen. waaw da nga may diglu man la benn alkaati. Hmm. mënut a servir junni personne. dañoo war a toll foo xamante ne bi ci corniche yi war dëkk bi foo tourné da nga leen war a gis bu jafe-jafe amee boo leen wooyee ñu mën a génn waaye buñ la sécurité am na barki dem lañ ne coppet sa tub sañ fàllu ba fii may wax kenn xamagu ci lu leer hmm. mais loolu bis bu set ñuy jàpp ay nit enlèvement moom dëkk yi gën a développé sax dafay am loolu moom dëkk yëpp sécurité. Ah, mais dañ cee xamagul dara. Hmm. xam nga buñ ne Tamba am na. sécurité danañ ko gëm nga buñ ne Tamba am na sécurité danañ ko gëm. mais koo xam ne dañ ko yóbbu kenn xamul ku ko yóbbu tamit loolu. Ah, d'accord hmm. xam nga buñ ne Tamba am na sécurité man dinaa ko gëm. Hmm. ndax kan fa rey automatiquement xam nañ ko ko rey police scientifique ñëw nañ ne leen diw moo ko rey jàpp nañ ko mi ngi ci kaso bi. non sécurité wala euh, euh, ñoom ñoo enquête bi moo leer rek. wala waaw mais enquête boobu nag lañ soxla ci mbir yi di xew ci Touba. Hmm. ñi ñuy rey di leen jàpp di leen rey noonu rek. Hmm. mu dem France daal di xëddeen hmm. ñi ñuy jàpp rek sàcc leen ñu dem noonu te fii may wax yu 23h fu mu la fekk ci mbedd ñu raafal la. Touba gi Touba gi. loolu du yokk kaaraange. barki démb jugee naa ci corniche su Serigne Cheikh Saliou di wàcc di ñibbi avant ma yëg kër sëñ Seexuna am sëñ Abdou Lahad lañ ma ramasse yëgguma commissariat damaa fay 3000. Hmm? barki sëñ Touba. yëgguma commissariat damaa fay 3000 waaj jàppoon ne raafal boobu ñuy def bokkul ci lii gën a ah, moo tax man la boo ma raafalee da nga ma yóbbu commissariat jël samay pièces xam man maay kan wan waxtu ma jàpp lan mooy sama liggéey bi ma doon dox lan laa doon dox man loolu laay xam ne da nga raafal waaye raafal ma taf taf rek nii nii sama poche rek daan ma ñaata nga yor man ngaa joxe 3000 waaj <laughs> kooku commerce la de noo gisee liggéeyu mairie bi ci Touba non bu may wax côté Touba hmm. dama site internet non non amul <laughs> mairie bi hmm. parce que Touba. Hmm. ni muy doxe hmm. mooy dëkkum ndigal la kilifteef. sëñ Muntaxa bàyyee ko sëñ Sidi. mu jël ab Lahad ko jox ko dëkk bi. mu ciy góorgóorlu mu ciy góorgóorlu. mu ñu boole ko téeméeri conseiller conseil yi doonut loo xam ne sëñ bee tëbtu rek ne diw ak ab Abdou Lahad ka tëbtu ne diw ak dañ ko def par quota. li ci commencé ci sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Mourtala kenn ko ne ñu laaj la ñaar mooy suppléant ak ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy lii bi léegi ñooñu ñëpp bi ñu ñëwee ak seex ñu dajak muy téeméeri nit ñu dajale leen ci benn barab ngir ñu saytu dëkk bi yow fi mu ne bu ñu la dëkk bi téeméeri nit a koy waxtaane ak abdulaat ka ma ca bopp ba da nga ko gëm dëkk bi lëndëm kurus benn lamp takkut. loolu mooy jafe-jafe dëkk bi voilà wax dëkk bi lëndëm kurus benn lamp takkut. Hmm. xasa xun ako mbalit. ba fii may waxee yow ñu ngi toll ci situation nawet baa ngi ñëw màggal gi. expert wax nañ na waaw moom laa lay wax dama ne la expert wax nañ na màggal gi hmm. ci kanam tuuti dañu dugg ci biir nawet bi. Mm. ba fii may waxee yow sécurité gun canal yi. Mm. ci àdduna ba mu sosoo ba nag ne maa ngi doog a digg xalif seen daal na manquement. am na manquement. Mm. ci côté laay wax. màggalu Touba bi mu ñëwee sëñ bi daa joxe ndigal ci Touba ci kanam ne nag a yegg foofu. léegi ñun moom la ñu fay suñu patante ci suñu place biir commune bi loolu du addiya loolu dañ ko jël ngir defar ci dëkk bi li nga jox sëñ bi sa yoon néew ci fu mu ko mën a dugal sa yoon néew ci mais li nga xam ne dafa jóge ci saw ñaq nga ne dama ko bëgg a participer ci dëkk bi nga mu am développement man bu ma neexee kaas ko ndax dama am place di fay patente. kon da ngaa gis ne compétence Abdou Lahad Ka dafa des. daf ko mus sa am ba mi des xam nga compétence xam nga lu des mooy ku am compétence. Hmm. loolu mooy am naa dafa manqué hmm. mais Abdou Lahad Ka bi ñu ko joxee dëkk bi ba fii may wax ak yow hmm. ba fii may wax yow man day dégg ma ñu ne forage sàngam waa Touba ngi ciy naan Abdou Lahad Ka ko bu yàggu dégg naa ñuy wax benn hôpital mais dëkk bu fekkee dañ la ko jox commune bi di gagné ay recettes ngay woote sa budget mënoon na budget bii kat tey jii mbalit mii kat évacué naa ko boo demee ci commune da a jug mbalit commune Touba lañ ci bind moo waroon a tonni biir quartier yi même oto yi nekk fii oto yi commune oto may diglu rek moo waroon tonni mbalit mi ci biir quartier yi mais évacué ko ba mu ñëw ci tali bi camion yi mën koo jël tuuri ko ba fii may waxee yow sën boo gis ci dëkk bi pàkkob jàmbur la ndax amu si nit ñi amuñu funtóor mbalit Touba situation boobu la ñu dund te fi mu ne boo waxoon léegi waxuma la ak murid waaye dañ lay daal di defub yéefar dañ naan la waroo wax ndax dëkk bi nangama naa mais dëkk bi kim dénk nag yaa mën a wane gan compétent nga am ngir mën a defal li la sëriñ bi dénk mais sëriñ bi yàqaloo wut kenn non non naqariwuta liggéey parce que alxamis bu jot quartier boo dem da fi fekk mbooloo muy bale waaye am nañ problème ku leen jëlal seen mbalit mi loolu amul Mbàkke Bawol gi amul fenn ci Sénégal dugg uniquement ngir da bale dëkk sëñ Touba bii waaye mbalit maa ngi ni amuñu ku nu ko yóbbul kon Touba am fu neex a liggéey la lamp yi tey jii koñ boo dem danga gis benn commerçant mu fay jënd ab ampoule am def ko poto làmp muy tàkk mais am nañ problème mu daj ñu bari mënuñu loolu assainissement bii nii am nañ jafe-jafe fi mu ne sekkati kanaal yi ngëbub suuf boo ko tibboon tey mënta jàll ci canal yi te ñi ngi jëm ci nawet bi situation boobu moo fi nekk bokk na ci li tax ñu sanctionné Macky Sall Abdoulaat ko moom nga xam ne responsable APR te nekk commune nekk yore maire bi. buñ cité ci Macky Sall rek Abdoulaat ko waxtu élection jugee day tëb. Hmm? waaw. Abdoulaat ka buñ ko jàppee ci Macky Sall. waxtu wu élection man sama mer ci Abdou Lahad laa koy faje dama koy dama koy dama koy dama koy dama koy sanctionné. dañ koy sanctionné waaw ndax mboolem responsable yi mu fi yore. Hmm. kenn kenn ku ci defal dëkk bi loo xam da danga ci jàpp ne lii kat mi ngi nii. Hmm. gisuma ko ci man. voilà euh, sëñ Moustapha mu mel ni waxtu bi jeex na boo amee jeexalee rek euh, nga tàggoowaale ak ñi lay seetaan. Hmm. waaw li may li may li may jeexalee. mooy mooy ak cant. di sant yàlla mi nga xam ne moo ma kàttanal ba ma mën a toog fii. di wax loo xam ne njëriñul dëkk bi la. loolu maa ngi ci sant yàlla bu baax. Mm-hmm. yow it aussi di la ci sant. ci xalaat bi nga am ba jàpp ne war na maa mën a wax lu amal njariñ population bi nga woo ma ma toog fii ngir partager ko ak yéen. Mm-hmm. di ñaanit wax ji ma wax. Mm-hmm. yàlla indi ci solution. ndax waxaguma ci luy samay mbir. ay hôpital laa fi wax ay tëli ay nangam yooyu jëfandikoo ma ko man donc waaye maag population bee ko bokk. di ñaan bu baax a baax nag seen barabu liggéeykaay bi suñu borom sotti fi ay xéewal ba mu nekk télé bu mag. Mm-hmm. ba nga xam ne fu ñu dégg site internet ak télévision. Mm-hmm. yàlla dana fa def barke boobu. Mm-hmm. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di aussi di baalu àq ñëpp ci koor gi. di baal ñëpp di ñaan yàlla defal ñu njëggal gu gu gu sax dàkk. Mhm. jërëjëf mu mel ni heure bii daaw defoon nañ <laughs> defoon nañ jotaay ren ñu defaat. waaw defoon nañ jotaay ci rajo bi ren ñu defaat ko diwén bu nu koy def yàlla nañ ko defaat ci télévision. incha allah rabbi jërëjëf waaw euh, jërëjëf ñu ngi koy sant baax euh, di ko gërëm Serigne Moustapha Misra moo nekkoon sunu gan nekk ki nga xam ne euh, bokkee ci parti réew mi waaye tamit jiite mouvement bi nga xam ne moom la ñuy wax Macky na dem ñu ngi koy sant bu baax ci oyof gi mu am wuyu si ci jotaay bi vraiment ak liñ ci doon séntu ci moom lu bari vraiment gis nañu ko ñu ngi sant Cheikhouna Ndiaye mi nekkoon ci caméra bi Moussa Ka ak sama waa ji ñu ngi koy ziar bu baax ak xadiñaa mi nga xam ne euh, mooy monté jotaay bi di leen sant bu baax di leen gërëm dig daje incha allah beneen jotaay invité de la rédaction jërëjëf